asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum Fall 94 Walf Sénégal dellu si na di leen siyaar di siyaare mboolem ki toog Fall 94 Walf uh, Sénégal seen actualité xam ngeen ko fii ci 94 Walf uh, Sénégal actualité tey yaakaar naa ni danañ dem ba Indonésie sunu équipe nationale xale yi nekk fa di jongante li nga xam ne ni moo di compétition coupe du monde bi ñoom nag am na ñaari victoire door nañ Argentine door nañ Pologne ñu doon dajeel tey. gis ngeen ko sunu technicien bi indi na ko xale bi mooy Idrissa Gueye moo dugal ñaari bi bii poloñ yi tey ñaari bii yi nga xam ni ay bii yu rëy la moo ko dugal muy Idrissa Gueye ay jàmbaar ngeen. voilà bu ngeen ñëwee ci côté bi gis ngeen ko voilà kii mooy euh, Serigne Salif Gueye moo leen di tàggat foofa noona ca euh, euh, coupe du monde ba muy Serigne Salif mooy seen coach su mooy seen entraîneur voilà kon xale yi am nañ ñaari victoire door nañ Argentine door nañ Pologne. ci coupe de monde xale yi kan nag nañ leen encouragé bu baax a baax nekk seen ginnaaw indi leen coupe bi ndax lu baax la ci Sénégal dina tax Sénégal tamit amaat yeneen i jéego bu baax ci coupe de monde bi voilà participation bi rek dafa doy sëkk rawatina nag ngeen duggaat ci biir compétition bi di dóor ay équipe yu mag yoo xam ne ay tour yu mag lañ am xam nga bu nee Argentine ci football bu nee Pologne voilà xam naa ni gars yi xamuñu Pologne mais Pologne tamit ay bu mag la ci. voilà parce que mondial bu nekk day ñëw seen mag ñi kon euh, day gën a yëkkatiwaat Sénégal rek voilà parce que football moo demee noonu bés parce que brésiliens yi ngay gis ni tey lu tax ñu gën a am tur lu tax nit ñi gën leen a bàyyi xel bu baax a baax ci àdduna bi mooy football bi képp ndax football ñoom dañ koo man ba ñu bari dañu wax naan seen maire yi dañoo mën a football maanaam Brésil ñëpp a mën a football xam nga loolu <laughs> da ngay dégg sax Sénégalais di ko wax kon daal. mi ngoo seen forme daal ay jàmbaar ngeen ci waaye gën leen a continuer rek jàmbaar ngeen de voilà ñu ngi seen ginnaaw voilà ba tey rek voilà ñu ñëwaat ci réew mi rek dafa mel ni euh, waa Pastef fii moom euh, dafa mel ni daal ñu ngi woote manifestation le 17 voilà manifestation bi nag lan moo ko waral ñoom euh, wax nañ ko la di 17 daal ñu ngi woo ñi nga xam ni ñoo bokkee ci partie bi voilà Sénégal nag. yaakaar naa ne yàgg nañuy wax ne maanaam am na ay boroomi xam-xam wala ñi nga xam ne ay xeltukat lañ wala ñi nga xam ne ay boroomi xalaat lañ wala ñi nga xam ne dañoo am xam-xam chaque jour dañ doon wax ci réew mi tolluwaay beeg ya ci aju dafa mel ni nag ñu ci ci cëppaandaw li ndax fi mu toll ni élection yi li fi des bareetul ku nekk xam ne élection yi moom daanaka li ci des bareetul voilà léegi candidat yi ana ñu ñan na léegi candidat bi nga xam ni nag moom la ñëpp di xaar te loolooy dëgg nag. moom la ñëpp bëgg a gis mooy Ousmane Sonko te ñi ànd ak moom nag chaque jour saa su nekk di leen jàpp di ñu koy ñu koy jàppale saa su nekk te moom ba léegi fi mu toll nii mi ngi ci problème yi ba léegi ne fi mu toll nii joxaguñ ko ay prénance ba léegi tamit kenn gisatu ko ci terrain bi te yaakaar naa ne 2024 euh, moom ñëw na ba noppi voilà xam naa ne daal li ci mën a am mooy réew mi daal ñoo ko bokk réew mi de ñoo ko bokk te dañoo am ay dëkkandoo. te daanaka suñu dëkkandoo yooyu noonu ñoo bokk Afrique gii te daanaka ñoom gënuñu leen ci dara ay doomu aadama lañ rek ñu bokk ci suñu continent bi ñu bokk benn continent bi voilà te gis ngeen seen réew yooyu na ma maare day tari la daan xew waaye nag Sénégal a ngi nii ñoom ñu ngi leen di xool di leen xool ba xam fan la ñuy mujjee kan nañu fexe ba rek voilà Sénégal euh, képp koo xam da war a bokk ñu bàyyi ko bu bokk parce que mbir mi sénégalais yi ñooy àtte voilà suñu eggee 2024 sénégal yi maanaam sénégalais yi ñooy àtte coow bari na lool waaye bu ñu demee ba nga xam ne ni dem ci mbañ gàccee des bu boobaa daal mbir mi dina leer voilà bu fekkee dana egg foofu laa wax te yàlla nañ fa egg nag loolu lañ bëgg ndax sénégal moom sunu Sénégal la bu yàqoo sunu Sénégal la bu defaroo sunu Sénégal la te yaakaar naa ni am na ci réew yoo xam ne yàqu nañ dix ans taxut mu defaru dix ans taxut mu defaru rawatina nag sunu sunu réew yi nga xam ne moom daanaka mën naan lu ñëw ndóol waaw sunu réew moom maarari tali bu yàqoo rek pour ñu defaraat ko du yomb voilà que bari na yoo xam ne ñu ngi koy wax te daanaka yooyu noonu fi mu toll ni anamam waaye mooy ressources yi ñuy ressources yi nga xam ne ni moom la ñuy wax ne mu ngi ci réew mi voilà dañuy tuddal lu mel ni pétrole zircon gaz yooyu yëpp daanaka anamu voilà parce que li problème bi mooy ay centre yu ñu war a defar bu fekkee loolu am na dëgg la te réew mi ñoo ko bokk te bëgg nañu defar mu parce que li problème bi mooy buñ ko iñaanantee suñu biir ñun kenn ku ci nekk liñ ci war a am da nga ko ci am te amaana am na ñoo xam ne sax xëy na pétrole boobu gaz beeg zircon bi mën nañ koo dégg nii waaye xëy na heure ban koy jariñoo duñ ko fekkee waaye nag ñu baree baree bare bu ñuy xeex dañuy suur ni maanaam ëllëg dañ fiy bàyyi ay doom dañ fiy bàyyi ay sët léegi ñooñu bu ñëwee jariñoo ko sax alhamdulilah bu ko defee réew mi nekk ci dal ñëpp kenn ku ci nekk di gis sa bopp bu baax a baax a baax kenn ku ci nekk boo gisee sa yéen ko jàmm bu baax kenn ku ci nekk nag gis sa bopp bu baax ci réew mi. voilà fi mu ñaxtu bii nga gis nit ñi di ko ñaxtu kenn ku nekk di ñaxtu kenn ku nekk di mer kenn ku nekk di wax. li ko gën a waral sax moo di ak dund bu seer waaw weer ak morom bi dafa jege nga bëgg a fay sa location bëgg a jënd ceeb ak diwlin ak yooyu ci aju ba pare nag xaaj poos bi demewul noonu noonu foo jaar ñaxtu foo boo mënul boo narul woon a wax sax daanaka da wax da gis ñoo xam dañ daan toog jàpp seen njaamu seen yoon nekkul woon ci ay wax ak yi yëpp waaye dangay gis ni léegi dañuy génn di wax li tax ñuy gën di wax mooy poos yi diisu. te ceeb beeg diw jeeg yooyu yépp seer na seer goo faw mu génn di wax di feeñal naqaram ak meram moo tax Abdou Diouf ak Senghor bi fi nekkoon mbir mi seen maanaam lu mu daan metti metti metti ci ñoom ñoom faw rek ñu wàññi dund gi ndax dund gi ñoom mbir maanaam ñoom fexe nañ ba wàññi dund gi nit ñi moom seen yoon ci leneen voilà seen yoon ci leneen xam am na dëkk bu ñuy wax Bousdour Bousdour Bousdour ñu nekk Maroc xam nañ ko Bousdour ñoom Sahara bi moo waa saxaraa bi saxaraa yi ñoo fa dëkk waaye ñoom ci seen jëmmi bopp dañoo manifestation moom dañ cee gaaw waaye dëkk la boo xam ne nii dañ leen a yombalal lépp maanaam dëkk boobu moom maanaam meew ma dafa yomb maanaam suukar sa yomb ceeb ba yomb dëkk boobu moom ci Maroc la nag moo nekk ci côté Sahara bi boo jógee Tantan di ñëw ay tax la wala bu dëkk-dëkkaat yooyu bés doo voilà bari na ay moodu yoo xam bu musaan di ñëw ba foofu noonu foofu li ñuy jënde pato meewu nidoo yu mag yi pato meewu yu mag ñaata lañ koy jënde foofu noonu cent vingt dirham cent vingt ko doon jëndee pato meewu nidoo yu mag yi laa wax bu daan màggal si voilà dañuy jënd euh, pato nidoo yooyu noonu cent vingt dirham cent vingt dirham ci jamono waaw ci jamono boobu te xëy na bu yokkoo ba yokk cent cent quarante te cent vingt dram boo ko calculer six mille six mille cinq cent lay doon maximum potu ni ca bës dóor nag laa wax bari na muur yu baree bari yoo xam ne foofu lañ daan jënd jee meew mi di ko dugal seen oto pour ñu bu ñëwee yoxal ko sëriñ si seen waa kër léegi bu mag bi fii nii Sénégal lu muy jaram quinze mille wala ay dix sept mille oto yooyu moom xam naa ne à peu moo tax ñun dund gee seer moo tax nit ñi pour ñu ñaxtu day yomb loolooy dëgg képp ko xam da ngaa yor sa dund bu mat dëgg la de yow xamoo lu seer lu seeru sa yoon ci waaye lan daay nga xam ne sa waay bala ñuy lekk lii dañuy daj lu nekk sa waay ñooñu jar nañu suur de voilà moo tax nag gars yi di génn di fipp di wax di feeñal seen mer gars yi lu ñu def duñ ko gis parce que boo xiifee luñ la defaral doo ko gis boo xiifee kuñ la tegal doo ko gis boo xiifee dootoo bëgg dara. voilà loolu mooy dëgg voilà kon 94 Walf Sénégal daanaka nee na daanaka daal lii la leen indiloon tey jii ci seen euh, actualité fii ci 94 Walf euh, Sénégal wooy leen di na ak ñun saa su nekk dee leen abonné dee leen partagé dee leen sem dee leen commentaire voilà fii la lépp di neexee